waaye mu ne yéen a yéen a ko bokk tamit mu ne na ngeen xam loolu bu baax a baax bisimilah dinaa ko déele mu jox waaw jox ko bu tee waaw mu ne ñëw gi rek boo ko ëppal ay milliards waaw waaw Ibrahima bi Baye Ibrahima Baye Ibrahima Niass mii waaw sa lakk nee na day wëla rek di xaritam ba jamono ba taxaw ba jamono bi nga maram itteelee képp kenn koo xam ne yaa ngi askanu ci Cheikh Ibrahim nga xam lii lan lay firi xam Cheikh Xadim tam lan mooy taxawaay loolu lu ci lay ñëw bu bokk ak yéen bis bi nga xam ne suba ñëpp ko bokk waaye ndax suba ñëw julli waaye tim nga sawar ak sant yàlla ak sant yàlla sa mbokk mu yàlla dimbalee muy liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey maamam la ñëw wan ko ne ko li nga nekk ñun ak yow ñoo ko loolu mooy waral ñi xir ñëw bi nekk tey gis nañ sëriñ bi waxtaan nañu moom lu xat-xat kontaan ñu nit kontaan nañ ci dajeeg moom te te daara gisuñ ko lu wuuteeg liñ doon liñ doon séntu. ñu ñaan yàlla. a wala ñu jël. ñu ngeen jógee. yéenaan. ah waaw kay bisimilah. waaye ñu ngi ñaan yàlla. waaw. bés fu jullit nekk bu bëgg lislaam rek. bu ko xamee ak bu xamul moom lañ ko defal. bési Sénégal la tamit waaye bési Cheikh Khadim la hmm. ñu ngi ñaan yàlla nit ñi ñëw ci jàmm teelu hmm. ni ko sëriñ bi di ñaanee di jotal ñaanam hmm. di ñaan yàlla jëf ji yàlla def ko fii misaani xasanaati yi eh, ndax loolu rek ñoom loolu lañ doon samp samp loo xam ne buñ ko jigee bàyyi bi ñu koy continué li bi ak ndokkale mbooleem njabootu Cheikh Ibrahim hmm. nga xam ne seen diggante ak njabootu Cheikh Khadim hmm. nekk xam na ko ndax moo ko doon loo ñu ngi bàyyi hmm. yéen it loolu la doon loo ñu ñaan yàlla mu saxal euh, nga xam ne sax ndax maakaan yi di lay jaamoo ko sax maakaan yi lay ko taawaan sax bu ñoo jël seen waxtu def leen soxlaa ne tey ñun amee ñeneen ñu leen soxla waaye dañuy ñëw rek boo wane suñu mbégte ak suñu kontaan ci bés bi ñaan yàlla ñu àgg ci ci ñëpp ñëw ci jàmm gan ci yi dundal jumaa ji ci julli juróom ak jàng jàngale ak tudd xam ni nga xam ne loolu moo sos jumaa jëlee nga xam ne mooy ndeyam ci Touba sax moom it maanaam boobu si daan liggéey boobu yomb na te ñu ngi ko yaakaar ndax liggéey yi nga xam ne moo ñu ñaan yàlla yàlla boole ñu wutuñu ñëpp wutuñu ci islam wutuñu ci gëm yàlla wutuñu réew mi wutuñu ci islam Mbacke ñu gis ay waaw nekk kuréel bi am dem ba tàkkusaan maa ngi leen di def maa ngi leen di xam baax ñu ne dañu fi dëkkal ànd ak maam dem xadra bi dem ci zaawi bi ñu def tàkkusaan wasifa def xadra bi ñu dafa timis ñu dafa génn moom sëñ Moustapha mi wax daal lii de Sénégal yi mën na ko gis waaw ndax ñun tey lu baax ku nekk ku nekk ñu ko aussi ñu ànd dugg si loolu dafay soxla loolu dafay dem di def xadra ñu ànd ak yow ñu wax ziara